asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di ziar de ah <laughs> leen di na ngeen def ak portere bi portere bi portere portere portere la ko mag ñi daan wax de ah maanaam boo demee nga fekk ab photo nga fotowaat ko xam nga wala wala wala wala du noonu lañ koy waxee ah photocopie bi génn na ah. projet photocopie bi Sénégal émergent

parce que samay man moom samay samay samay dongo samay taalibe ñooy tari te xam nga boo yoree sa daara jàngale ci ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay saaga seen baay sax yaa ko jàngal ci daara ji maanaam comme ni ma koy waxee chaque jour ñun ba ñuy nekk ci ñappal ñappal ak dëggal dëggal boobu nàmpagu leen sax bi bu biberon gassa gassa xam nga ñun ñoo leen jox yoon jox leen fit gunge leen te mosuñoo woote yàlla def xam nga ah, li muy def ñu nangul ko ñëpp nag mais liñ dul nangul kenn moom mooy xoolal jalgati suñu démocratie ak continuer di fen waaw comme seen leader moom fen dong la fi nekk lu waaye wax xam nga mu génn teggi ko ak ay fen ba projet bi moom dafa mujj nekk benn guy gu ñu génne fële ci ginnaaw jam ñaajo li ko sampal ko waa sénégalais yi peinture ko couleur verte jaune rouge ne projet baa ngoog projet bi projet bi waaye <laughs> li ngeen war a wax waxu leen ko man Assane Diouf Zassim man lépp lu ma mës a def dem leen ngeen laaj procureur Bassir Gueye wala ngeen laaj doyen des juges Samba Sall wala ngeen laaj samay avocat avocat gor yi ku mel ne Seydou Diagne wala ngeen laaj metre Moussa Sarr wala ngeen laaj ku mel ne ah, ah, Khoureysi Ba wala Sile Clédor li wala maître El Hadj man lépp lu ma mësa def je l'assume man kooku mooy Assane Diouf kenn mënuma vaar parce que lépp lu ma def nag xam nga buñ ci teg baaraam jotee dinaa génn na lii kat maa ko waxoon mais yéen xam nga li ma la wax vaar yi ay fen la xam nga ko ko waxoon fàtte na ko ba tey jii mi ngi continuer di wax defe ne ay sénégalais yi ay dof lañu te sénégalais yi nekkuñu ay dof mais man sama mbokk sénégalais yi laay waxal rek sama mbokk sénégalais yi yéen ñi nekk ci marché yi. bëgg a soqeeku mënu leen a soqeeku nekk suñuy waajur nekk suñu njaboot yéen laay waxal man waxumaak ñi nga xamante ni dañoo am mu sell mi te du sellul parce que fii ak ay fan ci campagne électorale la ñu jëm te dinaa leen wax ne xoolal fii Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fi sell mais keneen kuñ fiy woowee Seydina nangam lii musoo sell parce que boo selloon am na ruq yoo xamante ni doo fa dugg am na problème yoo xam ne doo ko laal man nag dama nekk nit koo xamante ni man j'ai pas d'amis man awma xarit man dëgg mooy sama xarit barki Seydina Mohamed dëgg rek mooy sama xarit kóllëre mooy sama xarit jom mooy sama xarit liggéey mooy sama xarit takk sama ndigg mooy sama xarit foofu la ñu wutee dama leen wax ne ñi fi daan wax ne ay activiste lañ ñi fi daan wax ne xoolal ay ay ay garabu garabu lañu ñi fi waxoon ne leer na leen ne Ousmane moom moo demoon dàmplu ji ñi fi waxoon ñi fi waxoon ñi fi waxoon xoolal bi këru làqatu gi ñëwee këru làqatu fen yi xam nga bi mu ñëwee ñoom ñëpp dañoo dem làqatu ji seen baay di fen rek man duma ànd ci ay fen moo tax ma teel a retiré man tooguma ba heure bii ma retiré wu man dama ànd ak dëgg te dëgg googu laay ànd toujours parce que dafa am ñaari affaire yu am Sénégal ñii ñuy jëflanteel ñëpp dañ leen a sant ay liggéey man liggéey yooyu ma taamu ci ñi nga xamante ni ñoom ñi ngi liggéeyal askan bi rek ñoom laa taamu ak ñi nga xamante ni xam nañu nan lañu def ba créer emploi xam nga mais ay juuti yoo xamante ni fi mu toll nii kàcc nañoo kàcc kàcc kàcc kàcc ku ci nekk xam nga juuti yi ci marché yi ni ñuy liggéey man ci marché laa juddoo marché leen laa juddoo juutu yu mag yi tamit noonu rek la ñuy liggéey moo tax waxtaan bi ñuy waxtaan nii du waxtaanu saagante waxtaanu maanaam luy defar Sénégal la luy defar Sénégal kàcc yi nga xamante ni ngeen fi kàccoon loolu la ñuy lijjanti mais sama ndong yi nga xamante sama école la ñu jaar dañuy tari rek dañuy tari li leen Assane Diouf jàngal la ñuy tari moo tax dérangé wuñu ma man maa wax ne président Macky Sall ñu ngi sàkku sa dellusi ci Sénégal pour jëmbat dooleel démocratie bu Sénégal loolu man maa ko wax je l'assume <laughs> man ba ma demee bañ ma refulee ma ñëw la ma waxoon Amérique moom laa continuer waat di wax bu ma demee ci këru dàmpukaay bi tamit bu ma génnee dama naan ci këru dàmpukaay bi laa génn lii laa fa doon def damaa daanu ji woon wala damaa bëslu woon wala damaa dàmplu woon mais amoulin argument il y a pas de projet c'est des mensonges qu'on a vécu de très longtemps ici au Sénégal avec certaines personnes qui font que mentir mentir toujours après voulez bëgg a ñëw xam nga argument projet taxawul guy gë simple gi la ñu simpi fële ci jam ñaajo ci Sénégal dara le

di financer bu ngeen amee seen deux mille cinquante nag seen biir pantre ak seen wàññi la yam mais bokkul ak li ñuy présenté ji fële ci banque mondiale waaw te day gën a leer nag te dinañ leen ci indil ay leeral parce que ci campagne lañ jëm saaga yeeg yooyu yëpp jaru ko président Macky Sall man la Assane Diouf ba tey Adja Marème Faye Sall man ngeen jële woon Amérique refoulé ma waaye man maay sàkku man awma personnel combat man maay sàkku démocratie bu Sénégal ñu samp ko ba benn ministre bu yàlla bind doo toog jàkkaarlook presse bi naan bu diw ñëwee ñu jàpp ko wala bu fi wàccee dina xam wala dinañ taxawal au cours de de de justice dinañ def lii dinañ def lële xamali ma wax amuñu benn argument xam nga àdduna bi yëpp fi mu toll nii guddi tey gi le quinze Sénégal la jël yanu ko yanu seen diggu bopp yi yaa ngi dégg moo tax nañu liggéey pour jëmale Sénégal kanam mais pas fi ngeen nekk nii parce que fi ngeen nekk baaxul fi ngeen nekk baaxul sama gaay te buñ demee ba ci kanam dina gën a leer man seen yooyu ngeen dugg di manipuler ka def affaire dara déranger wu ma ci parce que je suis très constant activiste su démb yi jébbulu ji nañu ñenn ñi Nous continuons de faire... Nous ñi ñi pour position journaliste de tamit ñi ngi continuer di pour position kon man mi nga ni mo taxone may xéxal Sénégal fama ma rek lay nekk waye yi rek kay taxaw di mais ñi nga Sénégal rek lañu gëm bëgg ko dépense hein ñuy xey marché yi foo mënti dem ci Sénégal ñooñu duñ ma saaga parce que xam nañ li may wax lan la moo tax yéen waa kër <laughs> ñàkk jàmm fi mu toll nii yéen waa kër ñàkk jàmm parce que ku wax ngeen saaga ko xam moo tax yàlla yàlla defal jàmm defal ko waa Sénégal xam nga ñoo ngi ñëw ci élection yi te li ñu bëgg dinañ ko def mooy déjjati leen xam nga samp fi leneen déjjati nag buñ ko waxee xel moo koy motti li parce que les doole la te am na doole yoo xam ne bu ko seen borom après xam nga li leer day leer ana yi ngeen doon jaay ana yi kenn jaayul bi yoon ana ni ngeen doon def ba am xaalis kenn parce que fi na ngeen continuer ci li ngeen nekk